li ñuy waajal nag mooy dimanche dimanche nag nekk jour bu rëy te li ko waral mooy président Macky Sall son excellence le président Macky Sall li mu def ci réew mi surtout ci jigéen ñi li mu fi def kenn mosu ko fee def ba fi quatre présidents yi fi jógee yëpp nekkoon comme nag ñu ngi ñaan jigéen ñi nga xam ne li ko yëng ñoo ko yëngal jour boobu bu leen fa kenn jiitu ñu daal di jàppale son excellence le président Macky Sall pour un second quinquennat ndax méritoo na ko réew mi nag réew mi nag duñ ko bàyyil ñoo xam ne matiruñu ndax réew ku mature ko mën a yor ndax ku bëgg a yor réew mi taxaw ci télé tiim say nit naan gatsa gatsa kooku kenn du ko jox réew jigéen ku xam ne jigéen mooy yaay jigéen mooy yaay mooy ku yor réew te ku bëgg a nekk ci réew réew mi naat da ngay am jàmm masa massa rek a koy yor waaye bu gassa looloo tax nag ma ne dimanche bu ñu fi yàlla bàyyeeg jàmm ak salaam jigéen ñee góor ñi laa wax ñu ñëpp ña wuy si terrain CFA ànd ak suñu autorité yëpp investit son excellence le président Macky Sall notre dénominateur commun pour un second quinquennat ndax liggéey na ci réew mi loo xam ne liggéey na ci réew mi loo xam ne ay nit toog nañ fi toogaat fi liggéeyuñ ko moom ci 12 ans def na ko fi comme nag ba ñuy voté référendum bi en 2016 muy laajaat sénégalais yi di leen xamal ne constitution bi ñuy changé nii 2019 mooy première quinquennat am et que 2024 mooy second quinquennat comme sénégalais diggaale na ak ñoom luy dëgg du wax waxeet te ku ko xam-xam ne ci liggéey la nekk nekkul ci ay waxantu comme nag ñu ngi naan na ñëpp dal ànd ak salaam xam ne réew mi ñoo ko moom jërëjëf